déglu ak ragal la ñuy jàng jamono yoo xam ne am nañu bu wóoloo di pour ci ay noonu bett ñu dal ci suñu kaw fekk ñu taxawal julli ñu jekku doxinu gannaaw dafay gaañ ñu lool lor na kon nag ñu di ci bàyyi xel islaam moom lu dee bàyyi na ca xel ñëwee ngir yar nit ñi dafa ñëw ngir yee leen di leen jàngal foofu ak fàggu ak wàkkiilu ci yàlla kon ne yàlla moom lépp moo koy def waaye àdduna moom daf ko indi sàkk ci sabab jaarloo ci doomu aadama yi mu nekk ay sabab yoo xam ne ni nit ki mën a sabab loo dana ko mën a jëriñ nga xam ne farlu moo gën sàggan teewul it nu war a gëm ne it du farlu gi rek mooy joxe yàlla ay joxe nu gëmit ne kon islaam ni mu nu yaree di nu jàngal di nu jàngal adduna di nu ko jàngal àllaxira di nu jàngal yàlla di nu jàngal itam sunu bopp mu ne roxi sa yàlla ma def na njëkk taalin ngir xare boo xam ne jaaisin aji dagan la mu waaleykum salaam am kanam boo xam ne jàpp ni de tarkuhu bàyyeem li ba àddina ñeel lenn ci kuréelu lislaam bi nga xam ne ñooy waajal julli gi mu ne xisa xasmuhum ak séddale seen moom kuréel boobu di julli wa in wijaaha qiblati laa ngeen bind ne doonte ca la féetee qibla itam la aw ala dawaab bihim wala ñu nekk seedi kaw daaba qasmuhum qismayn ñu seedi leen ñaari xaaj ko defee bii xaaj yor seedi gànnaay taxaw di xool ñiy julli ñuy julli dalal seen xel xam ne kenn du leen doxe gannaaw ndax am na ñoo xam ne ñi ñu ngi armé ñoom te ñoom rek la ñuy wattu mu ni nag waa allamahum fekkee ne waaw li mu wax ne wa in wijaaha qiblati fekkee ne dañoo nekk ci féetee xibla masalan nga xam ne noon yi mu ngi sunu kanam doonte nga def mel ne da nga nekk kon xanaa booba noon yi fi ñu leen séenoo dafa ne ci sunu gannaaw moo tax ñu dunu nu sañ a séddale jullikat yi ñaar ñiy garde ñiy julli ñu ne donte dañ ñu waroon ñoo ngi seen ñu jóge na ci wàllu xibla itam mu ne kon daañu sopp rek ñu séddale leen noonu ndax ñoom itam liñ ne mbooloo lu mu gën a bari la tuyaab yi gën a bari bu ko defee buñ ko séddalewul gannaaw xam nañ ne penk la ñuy jóge te daañu leen gis lu am nga neel mbooloo mu bari mu àndandoo ñu àndandoo ñun ñëpp julli ndax duñ mën a bett mais mën nañu tëm mën nañu jege itam ba nga xam ne waxtu yi nañu bëgg walbati ko di fab suñuy gànnaay fekk ñu agsi ci kaw moo tax ba tey yeneen ak bu doon loolu itam teewul rek ñooñu dañ leen war a séddale mu ne wala jullit ñi ala dawaab bi nga xam ne war ci seeni daaba nga xam ne dañuy junj junj bi moom xam na daruuri yu la mën na ànd ak bat ñu salaatul xaw fi ba noppi ak jullit contre jullit daruuri yu lor mu ne xismee ni wa àll moom mu ne xamalat na leen moom ilimaan yi nañ koy defee bu fekkente ne am na si ñu xam ne xamuñu jànguñu fiq ba xam salaatul xawfi nan lañ koy defee ilimaan ji balay kàbbar dana leen xamal ne mun kat tey jii dañoo bëgg a julli jullik ragal jullik ragal mooy jullik tiis gi li muy def ci julli gi mooy na nga koy defee liñ la ci may niñ ko yolamale nga defee ko nii te budul woon diggante bi mel noonu duñ la ko may waaye nag bàyyi julli gi moom nan waxee woon rek lan ak lanay tax julli gi daal di wàcc ci nit ki mën ko dégg luy tax julli wàcc nit.
ñàkk laab ñàkk ñàkk. ñàkk laab dinaa ko mën a am. xamoo ndox xamoo ko mën a dogal.
ngant waaw ngant yi daf cee bokk ñàkk bërëb boo jullee maanaam ñàkk pàkk pàkk noppi ñàkk bu ñàkkee pàkk rek dafa mën a julli moom boolaabee ak ban ngànt si ndax dana rot julli gi dana rot boobu day rot wala day day bàyyi bu wóolu rek jul fay kon rotul kon rotul am na beneen luy beneen luy rotal julli
jigéen joo xam ne ji.
waaw laabul.
laabul.
waaw ak julli am na am na geneen fu julli di wàcce de ku amul waaw kooku moom togguñu ko dara du julli du leneen amul ko. bu amul pàkk day day rot complètement wala ngay fay.
bu amul pàkk doo fay day rot complètement.
day rot complètement.
waaw complètement julli bu fekkee amul pàkk.
amuloo ngi mel ne gaynde dàq la noonu laa ko misaalam gaynde dàq la ngay yéeg ci kaw garab. mu dàq la ca. fekk da ngaa julli tisbaar rek nga toog ba takkusaan daroor yi ci jeex gaynde gaa ngi demul ba jant bi so mu mu dem nga wàcc doo fay takkusaan bu ko defee doo fay borom xam itam waxtu yu xam yëpp waxtu bi waxtu jàllee mu ngi koy testay ci suba di xam di xam di xam di xam maanaam ba ba ba takkusaan yooyu wala wax ba waxtu bi weesu waaw waxtu yi nga xam yëpp waaw doo lu ñu sart ci julli waaleykum salaam wa rahmatulah lu ñu sart ci julli.
waxtu yi nga xam ne xel.
xel.
xel kay doon. ngoog ak lan.
ak. ak kii sutura.
waaw sart yi xam nga sart bu juub dafa am waaleykum salaam ak sart surut si xaar ak surut waaye am na bu ngeen fàtte de bu ngeen waxul. yow mi ne yaa ko war a fàttali ko yow.
waaw mooy ca lan la wax bële. waaw maanaam koo xam ne kii dem na ba nga xamante ji jigéen ñi jigéen ñoo xam ne ji dem na léegi de ba laab.
waaw fekk na léegi li li ko dese ci waxtu yi léegi maanaam bariwul daal nga xam ne léegi de daanaka benn bàkk lay toll wala yu mel noonu. waaw ci misaal maanaam dem na ba nga xam ne léegi de bi jant si bëgg sa diggante bi muy sete. bay pare. maanaam matul ab raaka.
waaw foofu ci boppam léegi moom day kii dafa wàcc julli bi ci boppam dafa wàcc maanaam julli bi nga xam ne moom la.
matul ab rakka waaw waaleykum salaam matul raaka léegi.
matul rakka waaw maanaam julli bi nga xam ne léegi de moom la moom moom la war a julli.
waaw te fekk na bi mu laabee dafa ba noppi.
julliwul na ñaar ñaari ñaari ñaari jullee na ci baatam tisbaar ak takkusaan wala timis ak gee waaw léegi bu mujj gi. moom moo ko war mais bële day yokk dafa wàcc. bu njëkk dafa wàcc.
ngant li rot waaw ngant li ko tee julli waaw waaw mu rot ci ban waxtu fekk li des ci bëccëg bi bu njëkk léegi.
bu dee tisbaar ak takkusaan li des ci waaw bëccëg léegi bi de li ci li ci des léegi de mat na ñeent raaka waaw kon léegi ñun ñaar yëpp da koy da koy wàcc.
bu fekkee ne day matal waaw, am day- julli julli julli wàññi lu waaw.
day matal waaw.
mu des ñeenti rakka waaw.
kon léegi bu ko ngant li soog koy dal waaw.
wala ngant li soog a dañ ngant li bu ko do- bu fekkee ne da koy doog a dal léegi de waaw léegi daf ko dal fekk bëccëg bi des ñeenti rakka waaw waaw mu def nañ kon léegi bu bu mujj bi moo koy wàcc léegi bu guddi doo koy wàcc waaw bu mujj moo koy wàcc
bu njëkk bi bu njëkk bi léegi moom boobu dafay dafay julli da koy fay waaw dafay fay waaw lu tax ndax léegi maanaam na ko julli avant kii daf ko mënoon a julli te julliwu ko waaw julli ko bii nag moom gannaaw ngant li dala ne ko ci waxtu wi rek wàcc na ko waaw wàcc na ko moom wàcc na ko waaw donte sàgganoon na lu bari it waaye bi waxtu wi bi waxtu wi daataan génn bi waxtu wi daataan jeex am na ngant rek wàcc na ko duñ ne li mu sàgganoon ba takkusaan jotee euh, warul waroon na julli julliwul ba kii bi des ñaari rakka wala benn Euh, dana ko fay duñ ko wax daf koy daal di wàcc nga xam ne kon bokk foofu bu fekkente ne séddale nañu jullit ñi ñi war a julli ñaar ñaar ñi taxaw yor seeni gànnaay di leen wattu fu noonu yi jógee ñii di julli mu ne ilimaan bi dana leen xamal ne leen léegi kat dañuy séddale way julli ñi ñii taxaw ak seeni gànnaay di leen garde ñii julli bu ñu sëlmalee ñee dem jël seen place ak seen gànnaay ñii ñëw julli mu ne wasalla julleet nag bi azanin ak nodd way xamati ak liqaam ci ban bi law laa ci kuréel bu njëkk ba daañu nodd ak li ñuy ragal noon yi li ñuy bari bari xamuñ wet gu ñu nekk xamuñu nañ toll du tee daañu nodd de daañu liqaam itam nodd gi farata la wala naat nodd gi bàq luy àtteem léegi ñu ngi sunna bi xaw fi nodd sunna la ndax sunna la fu nekk fu nekk
maanaam ci ci mbooloo moo xam ne dañoo sàkku ñeen vraiment ñu ngi sàkkoo ñeneen rek waaw bu dee julli gi paase na julli gu paase na léegi ñun ñëpp julli wuñ woon nu bëgg a julli tisbaar léegi timis jot na ndax daal du nodd wala du nodd du nodd lu tax
ndax léegi dañu ne kii la nekkul wax waxtu yi kon daal nodd ba lay nekk sunna na fekk ne mbooloo la nu waxtu wi ñuy war a julli farata la faral na fekk mu ne ci waxtu yi ni ni jox te nañ seenu meneen mbooloo bu ñëw dolli ko si noonu bu nu wootee bu nu noddee Eh, charte yooyu ñeent yooyu bu ci benn dañu dootu sunna waaw Hein?
am na toujours waaw suba luñ ci waxoon suba lu mu wuteeg lu luñ luñ ci waxoon ci suba Hmm? loolu bi ñuy wax ne boobu ci jamono yu nodd ji la waaye du ci nodd gi ak nekkam sunnaam ñàkk nekk dañu ne amul wenn waxtu woo xam ne sañ nañ koo noddal te waxtu yu jotul ba noppi buy dañ bu ñuy nodd nag dañu nodd ci bopp waxtu boobu la ñu gën a sopp woo lu dul suba moom mën nañ koo noddal ci sulusu ñetteel ba nga xam ne kon waxtu xaajagul a jot ñu noddal ko suba rek kon lañ mën a noddal te waxtu yu jotul waaw kon buñ bokk ci waxee sunni am kooku nag du sunna moom mu ngi mel ne nodd gu njëkk gi ci jumaa sunna nodd gu njëkk gi ci jumaa sunna la ci kaw sallallahu alayhi wa sallam ba def ko woon waaye sunna la ci kaw Sidina Ousmane moo ko def def man dañ ko topp di mbooloo yu bare waaw mu ni ibdilula fi sunaa iyati ci bu fekkee ne julli ñaar la mel ne suba la tey suba la ñu war a julli julli ragal day jullee kon rakkaatan benn rakka ak kuréel benn bi bu njëkk bil ula hmm?
ci bil ula kuréel bu njëkk waaw li duulaa ak si kuréel bu njëkk ba sunna sunna rakka ba waaw benn rakka day jullee ak, euh, kuréel bu njëkk bi benn rakka bu ko defee mu daal di jóg taxaw ñoom ñu àggale sëlmal dem fab gànnaay ya ñee yoroon taxaw fañ taxawoon ñii ñëw ñoom it mu jullee ak ñoom ñaareelu rakka bi toog taaye ñu jóg mottali mu sëlmal ñu sëlmal am na am na am na lu dugg
waaw mais ay du ay anam anam la kan si julli mën na ànd ak xam nga salaatul xaw fi dafa am siddatul xaw fi siddatul xaw fi buñ ca àggee moom yaa wax dootu yàq julli ñàkk a jublu penku dootu yàq julli dégg nga mën nga ne allah akbar ne waajaa ngi lay yot dégg nga mën nga sa fas wëlbatiku fii nga wëlbatiku jublu noonu di julli waaye mooy siddatul xaw fi bu boobaa nag la dem jihaar kenn dootu ci diisoog waajur waaye buñ àggul foofu rek bu la sa ndey rawatina sa ndey wala sa baay ne la bul dem jihaar doo dem boo demee am bàkkaar
moom du ci benn anam de anam anam bi ñu wax léegi ci wàllu sëlmal gi nit mbooloo mi ngi mel noonu waaw amu ci ñeneen ñi am yenn xalaat moom kay moom kay moom masala yi moom yi ci bari na ci lool yoo xam ne dafa am na yu xaw- waxuma sax léeg-léeg wuute bi day nekk wuute bi ngir moom nga waxoon ne walaw bi wa usiru bi law ila xilaafi madhabiyin bu fekkente nag wa in la ci biir ngir mi waaw la am ñu am yeneen am yeneen wax am na ñoo xam ne amuñu ñuy sàrt léegi rek nga iliman ñi day sëlmal noonu ñaari ko ñëpp sax
kon day daal di dootu nekk salaatul xaw fi ndax kon ñoom ñaar ñëpp buñ ñëwee dootu am ku garde xam nga dafa ne woon wa ruxisa ci tàmbali bi ruxisa li qitaali masalan nekki tey nekki tey léegi kon ci noonu buñ jullee benn rakka bi ñee dem dégg nga fab gànnaay yi ñoo ñu amee woon taxaw ñii ñëw di julli léegi ñoo ñu doon garde kon génne guñ ci julli bi ñoom waaw waaw loolu moo tax bu mën a nekk faw ñu sëlmal génn si julli gi soog a mën a dem déplacé ba foofa fab gànnaay ya taxaw nag ñii soog a ñëw xëy na ci soor yi moo ko liiroon laa ko jaawal parce que dafa am waaw da nga ko am loo ko jaawale xëy na yenn soor yi maanaam gis naa ñii ne alxuraan la wax na ko Hmm?
alxuraan la wax na ko waaw man fa tax tax ñu ko def ko def détail yi Hein?
day daa ko ndëgg ko Fa aqimtu-l-lahum as-salaata wa ak atu-l-zakata wa doxum tàggu la waaye am na si ñoo xam ne dañu naan dañu wax ne léegi day benn kuréel bu jëkk bi xamul ñoo war a dellu si ñoo war a bu ñaar bi ñoo war a sëlal iliman xamul benn bi ñoo war a dellu si mel noonu daal bu ñaareel bi mooy sëlmal ak ilimaan bu njëkk bi moom bu ñu delloosee di sëlmal ak ilimaan noon yi fekk leen foofu jeexal leen te ba tey itam ba ñu génnee jóge fii di dem ba fële dëddu nañu xibla génn nañ ci charte julli kon faaw ñoom ñu sëlmal ndax ñoom benn rakkaa rek la leen ilimaan war a jiital waaw feeg ñi ngi ci ilimaan ji mooy ci benn rakkaa bi mooy seen ilimaan war nañ koo topp ci kabar maanaam kabar gannaaw kabar bu ñu ko jiitew ci takbiir mu yàqu di topp ci moom ci jëfi julli yëpp ba nga xam ne benn rakkaa bi mat na bu boobaa nag ñoom léegi ñu sëlmal
sama ci ñaar ak julli ñaar ak la ñu wax ay gën ci julli bu ñu ñeenti rakk waaw kañ ak waaw ñeenti ngay wax yow bu la jullee ñi ñetti ñu ànd ñeent gi daal am na ay soxla léegi dafa am bu ñu am
hmm?
bu ñu yo- yombal waaw mooy ñoom ñu sañ a sëlmal bàyyi ilimaan dem seen waaw kañ waaw waaw Hmm, ak séddale gi dégg nga de koy xam bi lu laa fi suna yéete rakatan mënu na wax kañ benn rakkaar wa illaa bu fekkee ne du- julli ñaari rakkaar masalan tismis timis la wala tisbaar wala gee wala tàkkusaan day julli kon fa rakkateen day jullee kuréel bu njëkk bi ñaari rakkaar waaye bu ko defee day taaye bu ko defee su ma xaaman daal di jóg moom ilimaan ji dégg nga bu fekkente ne taxaw na topp nañ ko ba mu taxaw ñoom it ñu daal di tàqali ko moom bu ko defee saaki tan mbir moo di aji noppi dootu jàng dootu def dara ndax day xaar ñee dégg nga saaki tan aw daa yéen wala muy ñaan xam nga julli moom am na béréb yu ñu yoonal ñaan waaye mën nañoo ñaan fépp ndax rukkoo sàbbaa lañ ci santaane boo sujootee nag ñaan lañ ci santaane Euh, boo kàbbaree ba noppi bala ngay jàng mm, santaane nañ ci ñaan ak bala ngay kàbbar bu ko defee muy aw daa yéen aw xaari an wala muy aji jàng nag fis naa iyéeti su fekkee ne jullit ñaareel gi la dégg nga moo au fi qiyaamihi mi ci taxaw moom ilimaan ngir day taxaw noonu rek di xaar kuréelu ñaareel ba dégg nga di ñaan wala muy noppi bi xëyri xaa ci foo xam ne du jullit ñaari rakka xam nga ñaareel rakka moom taxul ñu wax ndax ilimaan du toog waaye bu dee bu bu fekkente ne nag bu sunaa iye xam nga ne kon moom dana mën a taaya bu ñooñu sëlmale bu ñooñu continuer julli mën na toog bu dee ñaar bu dee julli ñaareel xam nga du am diggante ñaar raka mënu fee toog Hmm. day taxaw ñu ne nag kon ci mu comme day taxaw nag bu fekkente ne du julli ñaar te mooy ñeent nga xam ne mën na toog taaya ndax dana taxaw wala day toog rek bu taayaa ba noppi day toog mu ñu ko ba ñee ñëw kàbbar daal di koy fekk ci taaya bi fekk ci ko ci jataay bi wala day taxaw bu ñu kàbbaree rek fekk mu taxaw mu continuer mu tàmbalee nag di jàng noonu lay def dégg nga mu néew fi qiyaamihi mi ci taxawam kon ci bi xayriha ci lu dul jullit ñaari rakka dégg nga wala kon day toog rek bu ñu ñëwee ba kàbbar mu jóg taxaw wala dañuy kàbbar fekk si ko fi mu toog mu jóg mu ne taraddud am nañ ci déng-déng wa atamati mottaleet na moom allulaa kuréel bu njëkk ba par kenn kenn wasar wan sarafat te ñu soppiku dem ca xeex ba wala ca garde ba su ma sàllaa toog mu julli moom ilimaan bi saaniyati ci kuréelu ñaareel ba ma baqee la des ci julli gi dëgg dëgg na dé- dé- dëgg na dëgg na mu ne wa sàllama ko defee mu sëlmal moom ilimaan fa attam moo ñu mottali moom mooy kuréelu ñaareel bi mel na rek ko doon dabe dikk fekk ilimaan am ñaari rakka nga kabar ànd moom ñaari rakka mu taaya nga toog taaya ak moom mu sëlmal nga jóg mottali ñoom noonu la ñu mel ñoom fa attam moo ñu mottali ñii ñoom dañuy dañuy fay kuréel yàlla ñoom ñooy fay waaw mais bale moom binaa la ñuy def waaw kañ ñoom binaa la ñuy def waaw bu ko defee moo tax ñuy fay la leen faatoon benn ñoom dañuy mottali seen bopp ñooy binaa ñoom kuréel bu njëkk bi ndax bu sëlmalee ñoom ñu continuer mottali seen bopp foofu nag la ñu werante bu fekkente ne euh, du maanaam rubaa yu la day taxaw bu taayaa ba noppi nit ñee wala day toog nit leen mooy tara duñ boobu bee moom day taxaw mu ni fu mu toll waaw mu ni walaw sàlloo de fa atamoo leen si waaw.
fa atam moom bu ko defee ñu mottali seen ñoom yàlla si ñu julli seen julli bopp ñu mottali mu ne wala sàllaw doonte julli woon nañu sax ñoom ñi nga xam ne ñu ngi xeex bi imaam yi ni ak ñaari ilimaan ba tey jaasa mu dagan waaye sib nañ ko de bii ilimaan taxaw fee julli ak mbooloom ñee di garde bu sëlmalee dem ñi ci des kàbbar ñee julli woon ba motal ñoom it di garde ñii di julli ba julli ba àggale waaw comprendre nga waaw mu ne ko nit mu mu dagan waaye nag sib nañ ko Hmm. aw baaxum wala sibil gi léegi waaw lenn fësal sibil gi léegi moom maam ci xan la mooy ñaari ilimaan ñi waaw dañu war a am jenn ilimaan xam nga bu fekkee ne euh, amiru amiru xare bi bu ñu dee xare ki nga xam ne moom la xalifa bi def muy seen ilimaan xaq la am ci jiite gi xaq la wala waajib moom moo war a jiite Euh, Seydina Omar ibn al-As euh, dem na ci xare mu nekk amir bi def naa boobu ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du jamono Seydina Abubakar du jamono Seydina Omar mu gént waroon sangu sedd bu metti mu ragal feebar xam nga loolu dana waral tiim mu tiim jiite mbooloo mi am ñoo xam ne ñi am nañ ci ay wax ci loolu mu def masalan lu ñu war a xalaat dafa waroon jiital keneen ku mën a jàpp ku laab defu ko ndax xàqam la ci jiite gi mu def bu mu dikkee ñu wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu indi aaya alquran dina na aaya ji waxati ji daganal tiim rek in kuntum maridan aw ala safarin sa'idan tayyiban min zawjikum wa yatiba'u waaw waaw su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ko def taqrir ci loolu bàyyi ko si ñu wéyal ko xam ne kon amir bi amirul jeysh bi moo war a jiite léegi nag pour kara ko ragal gi ñu séddale ko mu def ñaari ilimaan comme euh, alquran dafa yoonal loon salaatul xawf bi fal taqum taifatun ah ñu def nag lu dul li alquran wax bu dee alxuraan waaw loolu moo tax ñu sib ko defuñu ko nag ci seen coobare dañ koo def ngir ragal ñàkk pexe ndax it euh, moo gën a simple lee gën a compliqué euh, salaatul xawf bi ni ñu ko séddalee kuréel bi ñëpp ñu am benn ilimaan euh, benn ilimaan la moo dëppook alxuraan waaye moo gën a compliqué la la gën a simple loole nag moo gën a simple daggan na waaye sib nañ ko maanaam si loolu moo taxoon lay sax waaw waaw mu anam boobu léegi dafa xaw a kii maanaam même bu ñëwee ci alxuraan daf léegi mais dafa xaw a daal boo ko defoon moom moo gën a compliqué tuuti.
waaw moo gën a compliqué waaye nag li ko alxuraan wax ida kunta fihim faqimta lahum salaata faltaqum ta'ifatun minhum wa ya'tu bi-salaatin wa yuqimuna faltakhudhu an asliatikum wa amtiyatikum fa yamilu alaykum maylatan waahidatan wa laa junaha alaykum in kaana bikum adun aw kuntum mardaa aw alaa safarin aw ja'tum rasuulan su ñu ci la ay tiim ci sax tamit bu baax waaw dégg nga mu ne walaw sàllaw bi imaamay ni aw baadun wala lenn si ñoom julli ci jenn ilimaan ji ba sëlmal yeneen ñi ci des ñëw julli wala ñenn ñi julli ak ilimaan ji ñi ci des julli fasdan dégg nga baadun lenn si ñoom fasdan ñii dañoo dal di julli ñoom rek ànduñu ak benn ilimaan dal di àggale dal gaawante dem jël gànnaay ya di wattu ñuy julli mu ne jaasa foofu foofu itam bala ngeen jàll.
Mhm.
léegi luy àtte bi noonu ci li ñu waxoon ci ki nga xam ne léegi maanaam moom julli nañu faat kii. ki nga xam dafa julli faat ci xaaral bu mel nii.
Mhm.
wala yàlla dafa léegi day wala mi ngi ñëw léegi di julli parce que moom soppiñ ko moom moom te mu baax moo tax.
xam nga fii am ngëneelam ngëneelam ko waaw xam nga fii li tax julli fas gi ba tey xaw fa moo ko moo ko waral moo tax ñu toléré ko te bu fekkonte ne sax du fas itam bu fekkente ne julli na moom kenn gis na mbooloo muy julli te mu xam ne ànd ak mbooloo mu ëpp tuyaat bi fuuf lu bari du farata ci moom mu baamu ah maanaam man man dugg la tey.
waaw man dóob boobu moo tax nag man dóob duñ ci forcer kenn waaw may wax ba xam ndax léegi fi mu nii.
maanaam may nañ ko loolu waaw.
lu dul bu fekkente ne ñi julli afdatan ñoom ñëpp dañoo pare dem di garde ñee kon bu ñuy dee julli te ñoom ñoo leen waroon a garde duñ mën a wàcc ci garde bi dal di ñëw ju julli wut ngeen leen mbooloo ndax loolu ñu taxaw di garde jullit ñi bu ëpp doole sax ngeen leen mbooloo li waaw xanaa bu defoon ay affaires yi maanaam lu mel ne ay quelques kii rek ñoom ñëpp daal kenn ku ne jullil sa bopp déedéet bu ñëpp ñëpp sax waaye ay affaires rek.
Waaw.
xëy na ñoom bi ñu yëgee ne waxtu jot na rek.
waaw ñu daal di julli waaw daal di julli.
waaw léegi nag bi ñu jullee ba noppi gis nañu léegi tey séddale nañu mbooloo mi ñii dem.
waaw bu fekkee ne ñee taxaw di garde doy nañu waaw.
dana mën a julli ci mbooloo mi nga wut nga ne.
waaw nga am nga ne leen mbooloo te euh, garde bi du faat waaw. ñu ko mën a defal.
waaw dañ ko mën bu fekkante ne nag bu ko defee du am ñu garde moom dañ ko dul mën a bu dee nii dañ ko mën a waaw dañ ko fekk ni jeex woyu la mu su fekkente ne nag léegi dafa jàppandiwul maanaam bàyyi xeex bi ñenn ñi xeex dañoo léegi dañoo songoo di xeex nga xam ne waaw ñu bàyyi ñenn ñi rek ñuy xeex ñu séddale ko kuréel bi xeex bi ci des dem julli ji kooku bu fekkente ne mënuñu ko la ñuy def salaatul xawf bi waaye bu fekkee ne man jullit ñi bari nañu bari goo xam ne ñoo ëpp fuuf yéefar yi ba nga xam ne bu ñu xaajee jullit ñi euh, ñee dem julli ji bu ko defee ñee ñu bàyyi leen xeex bi kon ñu mën koo def mooy wa in lam yumkin su fekkente ne jàppandiwul ñu bàyyi xeex bi dem julli ji
ñenn bàyyi ko ñu ci.
waaw waaw dégg nga léegi dañuy julli xam nga julli gi ci séddatul xawf bi du tee nga mën di xeex léegi mën nañoo bàyyi garde bi ñi ngi xeex waaye mën nañoo julli nga xam ne léegi jàppandiwul nag loolu la ñuy daal di séddale ñii ñii julli ñii di leen garde waaye bu fekkente ne mën nañu di julli li nga xam ne salaatul xawf nga xam ne wax ji du yàq julli gi xeex bi du yàq julli gi mën ngay julli di di dóoranteeg euh, jees yi noonu bi muy julli ni ñu waxoon nga xam ne mm, mm, salaatul xawf bi mën nañoo bañ a jublu penku sax mën nañoo bañ a wàcc daaba ji mën ngay wax itam te du yàq julli gi te julli gi du tee yàlla nangu ko ñaari def maanaam ñaari def la bu njëkk moo gën a ñu ne moo gën a tànn.
waaw moo gën a tar waaw waaw moom gën a tànn sax mënuñu leen si del daal.
mënuñu leen a séddale waaw ndax xare bi daal dafa dañu no bàyyiwul bàyyiwuñu nu benn suñu sago ba nga xam ne bari nañ xëy na ñi doon julli sax bu leen ñee di garde it bu ñëwee du ñu doy bu boobaa nag julli gi ngay julli moom daanaka dara yàqu ko xanaa nga bañ a amee njàpp waaye moom wax ak dóor ak daw ak walbati wan nga naaw penkoog yooyu yëpp da nga ko mën te dara du ci génn dégg nga kon oxira bu fekkee ne jàppandiwul oxira ah ak xaru la de ak xaroo waaw li axiril waxtu ñu yéexe mooy bi nga xamee ne nag léegi mënuñoo séddale ñii di garde ñii di kii mënuñoo continuer itam di xeex ak ñoom di julli metti na daal dañ ñoo xaw a ëpp doole kon dañuy wéy ci xeex bi ba mujjug kii bi nag nga xam ne léegi bu nu julliwul nag waxtu wi wéy ñu soog a julli soog a seet nag la ñuy ndax def xëy na balaa waxtu yooyu jeex ndax dañoo jàpp ne balay booba waaw mbir mi dana jeex waaw am na julli takkusaan goo xam ne def nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam te mu naan mal allahu buyutahum naan laqad axaruna an salaati dama xamul euh, xandax la woon te xamante naa xandax am na benn xare daal boo xam ne noonu lañ ko fa dégg nga mu ne nag li axira lixtiyaar yi ba ca mujj waxtu muxtaar mi wa salaw daañu julli ima an ci junj mooy ñu nekk seeni kaw yi daa ba ni ñu ko waxee woon mun mun ñu dala ci ci julli googu nga xam ne dañuy julli te sart julli yëpp dootu suñ ko seetati mu ne ka an dahamahum naka bu bettat leen dalati seen kaw
juróom juróom ñoom lii waaw benn ñaar ñett ñeent juróom waaw bii
fii muy wax ci wàllu waaw xam na ne jéem a xam ne وكره تنفر المصلى بالعيد قبلها لئلا يكون برئة في إعادة أهل البدع الذين يرون عدم الساعة الصلاة خلف غير المحسومة.
maanaam lii luy ala xam ne lii rek lii waaw def na lii waaw.
ah mu nga mu ne xam nga ñi nga xam ne ñoom bu fekkente ne dafa am ñoo xam ne nit naa fi la foofa ahlu sunna bi te mooy ñi nga xam ne ñeenti lekkoon yi xanaa gannaawam ak kii